soq bi am Mali rek moo koy def. kenn ñi moo ko def seen dëkk Mali kenn ñi moo ko def. kenn ñi moo ko def Mali ñi moo ko def seen seen seen seen seen seen Sofian Taker Review. Sofian Taker. Ayo, kalau kita ngerti apa? Ah, ah oke. Oke. Okay. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya kami Ya, ya, ya, ya. Dokumenti kami omuwe. Chika usta tibi. Rai nyibina ongaen lima ma jot a jotoon li ma jotoon a am ci xibaar ñaar moom deewoon nañ ci taasi xaw ma ñett bilaay gars yi yàq malien yëpp yëpp yooyu bi taxawoon waaw ñoo malien yi yàqoon yëpp lañ ko jotee kay ma xala malien dañ ñoo sonal dañuy rey suñ nit rek dañuy rey suñ nit rek waaw buñ duggee ci biir di yow ci ci gannaaw ba ci ci ci ba jeex non doy war na waar population yëpp dañoo génn ndax dañ ko yàgg a lu mel nii dañ ko yàgg a laxarloo dafa yàgg am